doyata feŋo beete hani domoro kila sallallahu alaihi sallam ay sahibo kumande abdullah ibnu abbas aya jebe domoro la bulo be ngala ngala bula molu nyaato mol koto la be subolu cikala akaya kaya ya ya ya a akaya ndiŋo sammillah wa kul mimma yalik akaya ko iten ndiŋo iten na e kayana e bulo borde borde moolu koto kamol la kinono domo kam walla koto subolu cikay ka ɗum hakaya ani o manke daji koti tedi ndiw hakaya ni ɓe domoro kala fo bisimillah ha o kuli biyaminik yaɗo mo ibul babulola yimɓe mo kelala daji kollete hakaya ni e domoro domo ibul babulola o to ni ɓe domoro kala isi domoro ke dula damen ɓe ite koto e kane ɓulo ke ɗolu koto kato o manke daji koti kila sallllahu alayhi wa sallam a teya yitande man tolla ko سيمو فين ناترا كنت الله بل وكنا برحان سينو كيلا صلى الله عليه وسلم دالي كوني مال باب المياه لنكو ولو أتكيلا فانكو ولي باران أدو ما يقول لي تهند انتو الفنان انتو المنتو الفنان كيلا صلى الله عليه وسلم أكو سينين الكامل ولا مو جما با لدن جهنم ودنباتو أبي سبب لا كوفلن أكو كوفلو دو فلو فلو ولمو أدبادين ولا جاتوتي naama oto tanka a wita janama la de naama tanka a sikeno alatayam ni ala yam fata e, a bara asi kuudo cala meyalon ko doyarole wote walla ma alamant be kisala wala ako fulan jaw hadamadi mo daa ako fulolu ɓe moɗum la jahanama ako jama baa amanke beeti bara jama baa wolle ɓe moɗum la jahanama ako saban kuwo ku fula fanan beji wolle ɓe hadamadi mo jama baa sambala arjana kono e kaye wole munelte sayiboli añininga wole munelta ko wole mu ala nya silaŋo ti ala nya silaŋo wole jamaa baa hadamadiŋo jamaa baa la duŋ arijano kono a be sababu la la ala nya silaŋo le kuwo fulanjaŋo a ko hosnul hulk daji ko ñiima a ko moo jamaa baa bi taa arijana le daji ko la ñiiñaa kamma la kaatu a ye a tara ko a ka hadamadiŋolu yuamilu nnasi bi muamalati hasana innama al umamu akhlaqum ma baqiyat in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu adamadiŋol be wo le ñaama adamadiŋol la daaji ko woli mu adamadiŋo ti i koni adamadiŋol daaji ko banta niŋ daaji ko te adamadiŋol la itolu faŋol la baluwo maŋ feŋ nafa adamadiŋo la baluwo maŋ feŋ nafa muŋ tuma la waato meŋ na daaji ko te mantolu la mantolu be wo le ñaama manto manto foota daaji ko la ali foota bee la kaatu ko wo le mu alkasarata le alla ma len kisa kasaro la wo le mu kiilañuma sallallahu alaihi wa sallam ala daaji ate daji ko sutule feŋo fendo daji ko kendo ani adamadiŋol tema e ko ni na benta silo kan na ye bulo du bulo ata bulo bole ye bulo kono muk fote ye bulo gonda bulo kono wo mala daji kol pour i kata mira ko ñin jutu tan comme modol kam men ke ye bulo yonama to ye bulo ko nin nengo diya maari yola te amari sa kalamuta ko ñimmandan ko ima man so bulo dilani keylata sonna wala sallallah alih w sallam ala daji ko kendo kamala na ye bulo dila to fonite ye bulo ba bulo kono parasi bulo muta foy foy kontal yaje ko nying ay ndankude fulen jam anaya naye e konto ata ñabondi le ma fan naye e jenke fote e ñabonda ma fan bara nya lo ka be juube kan aɓe nya koto fo ya kala muta ko nying ayen jelo wala mu kila kilañimatu sallllahu alayhi wa sallam anas ibnu malik raɓe ñing kumanni fo kam molye e baadiŋolu sa kala muta ko kila de kilade sallallahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala daji kulu ntolite wo banno la fola nteni na jama men be jang wala jama men be jang barin si dole fono do man din din din kabala jama ba ka tan kon kila la tamanya kila la lanya ala sinya annabiyo mo bemu ala daji ko kankel le bije men yalon ko akawluke ko men na domoro ngajefu katu je kuma mayata ba kila nyama sallallahu alaihi wasallam domoro na do domoro la aka fengo domo memba koto abika bulo yoni kata modulu koto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 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحابته تاهرين أجمعين Cheikh Famara Camara ñu gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay gërëm di la sant ci turu Supreme Islamic Council bi nga xam ne ñoo ñu yónni fii pour ñu waxtaanee ak bokki julit yi lu aju ci sang bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy rasulu haasihil umma nga xam ne moom mooy yonentab ñi nga xam ne ñoom ñooy dund ci mujjub jamono muy koo xam ne comme ni nga ko waxee jikkoom doy na rek ne yontu bi sallallahu alayhi wa même tubaab yi ñoom ci seen bopp ñi nga xam ne ay faylu suuf lañ ñoom ñëpp wax nañ ne wala ñu gën a bari ci ñoom wax nañ ne daal yontu bi yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rek mooy koo xam ne tey bu ñu ko bàyyee woon àdduna bi dina mën a doxal àdduna bi dina ko mën a toppatoo ci kaw lan jikkoom bu rafet ndaxte bu ñu ko seetloo moom yontu boobu alayhi salaatu wasalaam nga xam ne bi mu ñëwee ñëwut lu muy jàngale jikko yu rafet comme ni ko Famara Camara waxee moo ne yàlla borom bi sax bi mu koy tagg ci alquranul karim li mu ko njëkk a wax mooy jikko la ko taggee ndax na ne ko wa innaka la ala xuluqin azim képp kuy rafet jikko képp kuy baax jikko yow Muhammad yaa gën a baax kooku jikko yaa gën a koy kooku jikko kon ndekete gis nga jikko mooy li nga xam ne mooy kii defar nit moo tax bi mu ñëwee itamit yàlla jox ko risaala bi mu ñëw pour war koo jox ummaam muy xeetam lam leen njëkk wax mooy innama estu li utamima makaarimal axlaaq dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi ndax mun naa am jikko yu rafet jamono yooyu mu ngi fi woon waaye comme yonent bi sallallaahu alayhi mu nekk di koo xam ne kuñ pripéa la ci koo xam ne léppam dañ ko defar kon liñ ko joxoon mooy loo xam ne moom rek moo war a mën a defar àdduna moo tax yonent bi sallallaahu alayhi moom rek mu waroon naa mën a defal àdduna wax nga fi léegi ne ñun ñëpp buñ ko seetloo jàng ko ci taarix danañ anas ibnu malik radiallahu anhu comme ni nga ko waxe waxna ne dununa ci de néeg yonantu bi alayhi salaatu wasalaam fukki ati yàlla ma ngi liggéeyal yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ndeysaan yonantu bi mbaaxam yonantu bi jikkom yu rafet yonantu bi ak ni mën a yaree nit yonantu bi alayhi salaatu wasalaam musut ma wax man anas ne ma anas lutax nga def li anas lutax def lo li yonantu bi alayhi salatu wasalaam musu koo wax anas ta anas mu ne fukki at mu koy liggéeyal nek mbindan ci kërëm nek khadim lu yonent bi soxla rek moo ko def waaye lépp loo xam ne def na ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bu juumoon sax du ko gaaw wax na ko eh Abba e, e, Anas lu tax nga def lii wala Anas lu tax defuloo lii lii yépp jàngale ne war na ñuy mën a jàngee ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne kenn ku nekk rek war nga am jikko boo xam ne jikko bu rafet la wax nga fii léegi ne jikko bu rafet boobu daanaka buñ ko seetloo li ko ko jox du kenn ko muy yàlla borom bi subhaanahu wa taala ndax moom jaam la yàlla moom yàlla la moo tax yontu bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu demee ba laaj suñu ndey Aïcha radiyallahu anha na ko waaw kii ñu yónni woon ñun mu yónni bi sallallahu alayhi wasallam lan mooy jikkoom daf na wa kaana xuluquhul quraan jikko yontu bi daal mooy al alquranul karim ndekete kon yontu bi sallallahu alayhi wasallam soo bëggee wax yontu bi mooy kan mun ngaa wax ne al alquran ji doon dox la yontu sallallahu alayhi wasallam bu toog la yontu sallallahu alayhi wasallam alquran bu tëdd la yontu sallallahu lépp lu muy def rek booy boo demal ci alquran di nga ko fekk ci moom moo tax alquran tamit dellu ñëwaat wan ñu ne ki nak muy muhammad sallallahu alayhi wasallam bu len ko xoolee ne comme nit kess rek ndax ku nek rek mo la gën ndax yàllaa ko bindi nonu moko tané non te defar nako ko moo adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla yarnama na rafetal na itamit su ma yareel yàlla borom bi subhanahu wa taala jox ko taqdir bu mat seuk bo xamne nana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarjullaha wal yawmal akhir am ngeen roy way bu rafet kan moy roy way bu rafet bobu moy muhammad sallallahu alayhi wasallam kon yen umma al muhammadiya am ngeen royuwaay bu rafet te royuwaay bu rafet boobu mooy yontu bi sallallahu alayhi wa sallam ci képp koo xam ne yaakaar nga ëllëg yowmal qiyaama fay gu rafet kon ku yaakaar ëllëg mucci bàyyil xel ne fexeel nga roy yontu bi alayhi salaatu wasalaam wax nga fii léegi ne yontu bi alayhi salaatu wasalaam mooy koo xam ne wax na ne bokk na ci jikko yu rafet mooy jullit bi na bàyyi xel li koy jëriñ ci àdduna ak alaaxira ndax wax na ne àdduna bii am na mbir yoo xam ne boo ko fi toppee ëllëg yowmal qiyaama mun na laa indil ay problème yooyu mooy lan mooy àdduna bii képp ku fi nekk liggéeyul loo ëllëg yomal xiyaama sa làmmiñ wii nga topp ko lu la neex wax fu la neex taxaw fu la neex nga tàllal ko mun a ëllëg boo moytuwul làmmiñ boobu mun na laa dugal safara moo tax mu ne bari na ñoo xam ne dugg nañ safara ëllëg yomal xiyaama dara dugalul leen safara lu mooy seen ngóobiti làmmiñ beneen bi mooy sa pëy mi mooy li nga xam ne moom moom moom mooy mooy li nga xam ne doomu aadama dafa ànd ak moom nga xam ne toujours rek bànneex lay yëg loolu tamit ci góor ci jigéen daf ko war a moytandiku wuttu ko ba bu mu ko def lu ci lu dagan moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam benn waaye mos na koo laaj ne ko waaw ndax ku njaaloo def loo xam ne lu bon la danañ la ci mbugal mu ne ko ndax soo ko defoon ci lu rafet ndax duñ la ci fay mu ne ah kay mu ne kon su fekkee ne def nga ko ci lu dagan ñu fay la ci kon soo ko defee ci foo xam ne dafa xaram dañ lay mbugal kon nag yonentu bàngu sallallahu alayhi wasallam comme ni ko Cheikh Famara waxee waxtu bi